برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان la mu leer maam Ablaye Niass bi mu jógee Fass ñëw Tiwaawan indil maam Cheikh Alhaaji Malick Sërci ndax bi muy dem Fass daf ne li ma bëgg man ab maam Ablaye wali wu la woon bu mag li ma bëgg man Ablaye Niass. Cheikh rek a koy xam defal ma ko. waaye du ma ko wax mbindeef. Cheikh Omar Fouti mag ñi fi njëkk a tasaare wirdu Tijaan muy maam Alaaji Abdoulaye Niass muy maam Alaaji Abdou Malick Alaaji Malick ñoom ñëpp seen calala yu njëkk mi ngi dellu ci Cheikh Omar Fouti moomu. maam Alaaji nag ba mu ñëwee fii gis ne. lijaasa yépp lijaasa yuñ tënk la moom moo njëkk a jógee fii dem Fass dem wuti lijaasa litlaq ndax lijaasa ci yoonu tijaan ñetti façon la benn ñu may la lijaasa ngay joxe wirde wi rek te doo samp muqaddam wala ñu may la lijaasa joxaale la ndigal ngay samp ay muqaddam ci limite maanaam fukk ba luñ la mën di limité wala ñu may la lijaasa litlaaq ngay joxe wirde wi di samp ay muqaddam ci lu duut limite boobu nag moom amut fi woon mu jaral maam alaaji abdoulaye mu jóg dem faas ba mu demee bàyyi nee na ma mu ne sama bàyyi dama nekk ci zaawiya ba rek di ñaan yàlla ba muy dem itam ñeenti bëgg-bëgg moom la baayam amoon bëgg-bëgg yi mooy mu am lijaasa litlaaq ci yoonu tijaan ñaareel bi mu am doom jom xam ne dana nekk boroom jamono ñetteel bi bëgg na itam ci kurus ak Cheikh Ahmada Tijaani mu am ci ay per yu def ci kurusam gi ngir barke bëgg na itam ay kawari Cheikh Ahmada Tijaani def ko ci boppam muy barke mooy téere bu ndaw bi nga gis ci portele bi ma maam ji def ko fii ci doxam ba mu dem moom waxut kenn soxlaal bàyyi na na ma dafa nekk ca zaawiya ba di def ay tawassulaatam rek di ñaan yàlla bëgg-bëggam mu ne ba benn bés am ku ñëw joxoñ ko muqaddam bi nga xam ne moo jiite woon zaawiya bi ne ko su wasifa bi pare demal ca kële li ngay laaj mu jox la ko mu ne ba mu doy kooku mooy arabi ibnul muhib mooy bàyyi idris al iraqi mii fa nekk tey nga xam ne dundam passé na juróom ñun fukki at ba demee commencé wax ak arabi ibnul muhib kooku di réerantal mel ni xamul li maam di wax bàyyi na sama bàyyi itam werante wut moom mu ne sama bàyyi dellu ci ay ñaanam ak ay tawasulaatam mu ne ba jëmmi bés arabi ibnul muhib ci boppam nga xam ne moo nekkoon muqaddamu zaawiya di ilimaani zaawiya ba itam ñëw na ko suñ wasifa ba pare nag ma topp ñu dem ci néeg ba ca kaw ci zaawiya bi mu ne mu ko ñu dem ca néeg ba ca kaw zaawiya mu ne ba tey sama bay waxut ak moom mu ko kunta tatlubu ijaazatan mutlaqatan fi tariqati tijaaniya haa hiya wa kunta tatlubu حبات من سبحة الشيخ لتبرك ها هي وكنت تطلب شعيرات من شعر الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه لتبرك ها هي من ببر الله جبو نكون لك خمغة كلا إبالون كرو برنغة نيو جمن مونا سما باي نكو من دقومك واي جسنا دال يري وافاسي لصمك mun a arabi ibnu muhib ne ko zaaka cheikhu tijaani bi mu demee Faas yàlla boole ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane feeñu ko boole ko Sukayri bi mu dikkee ci Cheikh Sukayri mu ne ko wax ma li nga bëgg ñu defal la ko daf ni ko cheikh koy xam defal ma ko Cheikh Sukayri ni ko baax na Cheikhu Tidiane moo ko ni ko sama kurus la bëgg sama ijaaza ndax dafa na ko yaa ngi doon ñaan yàlla am di jaasale tlaak ci yoonu tijaan mi ngi nii yaa ngi doon ñaan itam am ay per ci peri kurus Cheikh Ahmada Tidiane def ko ci sa kurus ñeenti per a ngi nii yaa ngi doon ñaan yàlla itam ay kawar ci kawar Cheikh Ahmada Tidiane pour barkeelu kawar yaa ngi nii mu ne moo tax sa maam xalifa ba sama bàyyi ñib see yoonam woowa ci la ko doon waxee ne ko وزار الشيخية في فا وزار الشيخية فاس على كبر لكن يسوق حب الملاقات ونال ذلك يقظانا وصافحه بحر المعارف ينبوع الكرامات وزار شيخي في فاس على كبر لكن يسوقه حب الملاقات ونال ذلك يقظانا وصافحه بحر المعارف ينبوع الكرامات مو تو سو باي دانا واخني من سوما نيهي سا من شيخ احمد تجاني موم لي جازال نخ لاكو واجي نكو ذاك شيخ تجاني كلا كلا نيوولون جوخوج مالا نيغا نيو ما جوخ لا لي جازال بي كوكو شيخ احمد تجاني لا وهي نك خطبانيه بيمو بك كيكو موم مالك سي لنج كاي واخ مالك سي لولاي سبب مو ديلو سي سيد حاج مالك اسكي لولاي سبب ميم بيم ديلو سي دا فا ديف ديريكتومون تي واو واو بيم نيو سي سيد حاج مالك واخنا لي ديف نافو جوروم بن وير لا كو واخنا كو امنا نك سيريتي بوما لا انديل موي بير كورسو شيخ سيد احمد تيجان رضي الله تعالى مو خول تي بير سانغام غيسول بيرمي شيخ الحاج مال دوغال لوخوم تي سوفو درام كين نكو نخ نكو نخ دو بي مو نكو مودو loolu indi Maodo. Euh, kon moom Abdoulaye Niass moo tuddee. tuddee Cheikh Al Hadj Malick ah mu des nag bëgg-bëgg ñetteel ñeenteel bi booba ñoom ma nga bàyyi ñoom bàyyi fële ci fukki at ak benn fële ca kër Samba mu ne mu nekk ci zaawiya ba di ñaan ay soxlaam ba jëmmi bés digg bëccëg ci lu nelaw mu gis bàyyi mu taxaw ci xabru Cheikh Ahmada Tidiane bi. mu xam ne ñaanam nangu na maam alaaji nag ci yoon woowa ba muy dikk gis na gisante naag Sidi Ahmad Sukayri ja Sidi Ahmad Sukayri itam jox na ko lijaas ne ko soo demee Sénégal nga wax nga wax Sidi Hadj Malick moom itam bind nañu ci laaj lijaasa bi nga ne ko ni nga def ba ñëw moom itam na ñëw jël si lijaasa mu ne sama bàyyi ne ko soo mbokk la ci tariqa bi ak ci diine ji maqaama bu ma elloo ci tariqa bi rek moom itam elloo na ko soo ma soo ko soo ko joxee lijaasa mën naa ko koo yëg Sidi Ahmad Sukari def ñaari lijaasa bii mu mu taqdim ca maam Xaji Abdoulaye bii mu taqdim ca maam Xaaji Malik e eh, moo tax maam Alaaji bi mu fi ñëwee mu jaari Tiwaawan yóbbu di jaasa boobu ko koy rije yónnee pour muy yokk yót ko Sidi Hadj Malick ba muy ñibbisi si ba mu fa toogee bay ñibbisi si fekkoon na mawalaa ji gàddaayoon na réewi Sénégal dem fële ca réewi Angleterre bàyyi ne na gannaaw moom rek rakkam yi tegu ci moom yépp ci réewi Angleterre lañ juddoo li ko dalee ci maas ak bàjjen yi nga yi nga ci xam ñépp foofu la. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.